jafe-jafe bu tar bi nga xamee ne kon askan waa ngi koy dund gannaaw commune bu Balu jamono ji commune yu Mudiri ak Jawara ñoom ñoo nekk ci biir ndox mi ba fees dell muy ñaari dëkk yoo xam ne jamono ji dara doxu fa ba tax na ñoom ñoo ngi sàkku askan wi nekk foofee kon kilifa yi ñëw wallu leen nu mu gën a gaawee Pape Ousseynou Diallo ginnaaw baalu ak arandu dëkk bi di Mouliri nag daal dina jël wàllam ci inondation yi ba tax na yàqu-yàqu lu bëri lañ fa nemeeku rawatina quartier yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wetu dex bi ñoom ñëpp ndox bi nangu na leen askan wi ñu ngi yuuxu wàllu ndogal yàlla la mais comme que nit yi yemuñu vraiment loolu moo tax ñu ngi lancer un appel loolu moo tax ñu ngi lancer un appel pour demander de l'aide dimbali la ñu soxla voilà financière ou matérielle xeebuñu dara lu biir dëkk bii di Jawara ba tax na foofu tamit ay kër yu bëri ndox bi nangu na leen askan wi nekk ci jaaxle bu métti Jibi Jàll kenn ci agent de l'état nag mi ngi yuuxu naqaram. lu may wax ci olof population Jawara ndopp yi lu mu leen attaqué mënoo ko xam dafa ëpp dayo dafa métti ñëpp kenn amatul dara gouvernement bi ñuy jàppale doomu aadama yi sonn nañu kër yi sonn nañu kër yi ngi daanu ndox yi ñu ngi dem ñoom ay gor lañu mais nañ leen dimbali dimbale ñuy fekk ci dimbalee enseignant yi seen kër yi yàqu ñuy liggéey mënuñoo dem liggéey seen kër yi dafa yàqu <laughs> dimbale ñëpp jàppale ñëpp waxuma te yàlla tax parce que c'est un beau c'est citoyen à les endroits man nañ ko def affaire bi foo ko ëpp na ko ay jaawara amatul garage amatul yoon boo bëggee liggéey da nga jaar feneen pour gis liggéey da ngay sacrifié wu dafa metti foo ko nattee weesu na lu may wax ci loolu yëpp gouvernement bi nañ créé àll artificiel situation bu jéggi dayo bi ñu nemeeku ci département bu Bakel ñu ngi wax ni solidarité nationale war nañ ko manifester ngir ñu dimbale askan wi nga xam ne jaaxle lañu ñu nekk Tambacounda Pape Ousseynou Diallo rajo Futur Média. Ousseynou Diallo fële ca Matam foofe nag euh, askan wi di sakk nguur gi gën leen fulaal bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund di ay kàddu yoo xam ne mu ngi tukkee ci président conseil départemental ba foofee mu ngi wuyoo ci turu Amadou Diallo ñu teewlu leen ci waxtaan mum seq ak Ali ñang Niang. Eh, dañu kontuwul vraiment ci seen seen kii yi alors que nag ñun nag ci dëkk bi lañ lañ mais président lan moo waral réaction bi sentiment bi ngeen am nii ci euh, autorité yi. Ah, man franchement je m'excuse même vraiment parce que par parle au peuple sénégalais et de vraiment de d'élever la voix comme ça mais je suis très de sama nakar laay wax te c'est pire que boo demee ci population yi malgré les populations yu nekk ci daani maayo ay ngijiloon ay kii nangam les images qu'on renvoie tout ça et cetera demal ci ay ay ay ay ay ay ay jógel yooyu tout ça et cetera mais vraiment quand même dégg ngeen voilà muscle intérieur ñëwoon fii ou bien muscle hydraulique xaw ma kii assainissement ñëwoon fii tëgg euh, leen comme ça mais quand même ñoom ci ci ci ci ci lañu bokk mais booy gérer dëkk da koy gérer ci ñëpp yemula leen c'est ça qu'on attendait et puis ñoo ko bokk les moyens de l'état ñëpp ñoo ko bokk gis Ali Bandit noo mën a comprendre région yëpp jot nañu seen eh, seen eh, eh, et yaatu yaak la région de Matam pour le moment qui est dans ce lan moo waral loolu président je sais pas ba léegi même ce matin y a les collègues là ñoom Ablaye Anne ñoom ñëpp ils m'ont appelé mais qu'est-ce qui se passe je ne sais pas le le le le payeur on l'a interpellé lui il attend du commune du département du du département de euh, Ranier du département de Kanel du département de Matam amul ci kenn les communes aussi dedans kenn yu jotul ci terme d'investissement te c'est avec ces kii là euh, pour régler certaines questions Amadou Djibril Diallo lenn ci waxtaan lu mu seq ak Ali Banel Niang suñ ndaw lañ teewal ca Matam ak li ko wër di ngeen ko dégg nu mu gën a yaatoo mooy daan ganu xibaaru rajo Futur Média ci njeexitalu xibaar yi lay doon fële ca Tambacounda béykatu banaana yi ñoom ci njàqare lañ nekk ndax euh, mbënd mi nga xamee ne moo nekk foofe tax nañu ñàkk lu ëpp ci juróom benn téeméeri million ci suñuy koppar muy euh, ay perte yoo xam ne ku ci amul assurance nag da ngay am jafe-jafe ngir mën a fay bor yi nga xamee ne def nga ko ci banque yi Ibrahima Jàmme ci ay leeral non yaakaar amatuñ ko parce que li ñu prévision de kii yi ñu defoon yëpp ñu objectif de production yi ñu defoon yëpp lépp naax na saay. ndoxu dex bi nangu seen tool yi moo tax béykatu banaan yi amatuñu benn yaakaar ay fukki fukki hectare moom la ñu ñàkk ci biir ndox mi ne boo ko xaymaa nag mot na ay téeméeri téeméeri million yu nga xamante ne dañ ko leboon ci banque yi Adama Ndaw moom mooy secretaire général collectif régional béykatu banaana ci diwaanu Tambacounda. campagne bi moom dafa ne campagne bu métti ci ñun. parce que ngelaw li njëkkoon na jaar yàq suñu plantation yu bëri tey nag i ndox mi ñëw na li desoon aussi mu ko yóbb te dañu am ay bor yoo xam ne dañ ko jël ci banques yi donc montant ko crédit campagne yi nekk na presque cinq cent six million yoo xam ne war nañ ko fay donc loolu nag ak situation bi ñu nekk tey dina doy waar moom su fekkee ne état bi ñëwul dimbale ñu pour que ñu mën a rembourser crédit yooyu dina metti suñu côté trop. assurance agricole nag moo ngi fii pour gunge leen wante nag bu ñu sukkandikoo ci kii di Mamadou Moustapha Fall di directeur national de la compagnie d' assurance agricole moom nee na ñu bëri ci ñoom assuré wu ñu seen tool yi. xam nga ñun sénégalais wala africain xamuñu assurance xamuñu culture sañu aada ak diine gi fii yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne ay gàllankoor ba ñoom daal duñu mais terewul tuuti tuuti ci ñoom ñoo xam ne wax dëgg yàlla assuré nañ ci ñun et lii dex gi ñu yàq seen tool yi ñoo ñëpp dinañ leen fay ñun compagnie bi dinañ leen fay. waa conseil national de concertation des ruraux di méttitu nag li dal béykat yu banaana yi le moo waral Sidi Ba di leen di ñaax ñu faral di assurer seeni tool yi le. E di xiirtal nit ñi rek assurance am na solo lool. E itam su dee am na béykat yoo xam ne jotuñ ko def e ñu sàkku ci ñaan nguur gi ci turu CNCR ak turu président CNCR na nguur gi naka lay war fexe ba jàppale leen ba tolof tolof fi ñu nekk jamono yi euh, ñu mën caa génn. banaana yu Tambacounda nag tey jii ñoo ngi ci njàqare bu rëy a rëy euh, ay fukki fukki hectare ñoom la ñuy xor ni ci biir ndox mi lii di dex bi moo ko nangu. Ibrahima Jammeh njiitu réew mi euh, président de la République xamle ne day dem ci département bu Bakel. aljuma ak samedi bii di ñëw Bassirou Diomaye fay tey la ko xamle ci réunion conseil de ministre bi doon am juróom-ñeenti waxtu moo dem ba tegal juróom-ñeenti simili fii ci rajo Futur Média. ak RFM kumpa jeex na. dem ca podoor foofee kon euh, njàqare moo fa nekk wala boog euh, kon li nga xame ne moom mooy. Euh, kii di Ndiaga Niang ñàkk bakkanam moom nag xel me neexul ba tax na mu indi foofee tiis ci département bu Podor euh, kenn ci euh, jege ñaaleem nag euh, di tuuti bàjjen ñang moo waxtaan ak ki nga xamee ne mooy suñ ndaw lañ toggal foofe ca diwaan bu Podor ak li ko wër wax na li nga xamee ne moom moo ko metti ci mbir mi nu mel ñu teewlu tuuti ñang di bàjjeenu ki nga xamee ne moom moo ñàkk bakkanam foofee ca diwaan bu Podor fii ci Podor talaata yem moom juróom ñett octobre bi mu nag ba tey def nañ déclaration à la gendarmerie sapeur pompier ak képp koo xam ni doomaanu Podor nga ànd nañu di ko seet fii ci dex bi fii ci mbënd mi fu ne wër nañ ko fa war nañ ko itam ci dëkk dëkkaan yi nga xam ne moo nekk ci biir département de Podor mais itam ay photo affiché nañ ko def nañ ko ci réseaux sociaux yi ak groupe groupe WhatsApp tey nag la am juróom-ñeenti fan ñu ngi koy wër boobu ba tey gisuñu ko mu mel nii nag du rek mu am ci région de saint gu juróom mu am ci département de Podor ñu ngi ñaan ndimbal ci autorité yi autorité administrative yi autorité yi locale yi pour ñu jàppale jàppale jàppale toute la population podoroise jàppale ay waajuram pour ñu seen doom li ñuy wax njaga ñan ànd gësëm di kuréelu syndicat àndul ak li nga xamee ne kon moom le premier ministre Ousmane Sonko doon sàkku ci ñoom maanaam ñu tegandi seen revendication yi ci suuf ndax situation bi nga xamee ne réew mi foofu la toll jamono ji ñoom nag ñu jàpp ne loolee du luñ mën a dégg ndax fi mu ne nii am na ay question yoo xam ne faw nguur gi andi ci ay saafara nu mu gën a gaawee ja Dia Thiam moo wax ci turu ànd gësëm ñu teewlu ko ci jokkoom téléphone ak Amadou Sabar Ba. dootuñu joxe parce que bu fekkee nee na li mu fi fekk bari na ba nga xam ne xel li bëgg na même bu bëggee joxe amul lu mu joxe ah loolu mooy amul lenn lu ñu fi joxe bu dee nag nit ki nag nee nga da ngay koy renforcer te loo ko jox ba pare mu loo nga xam ne xel li bokkul ak équité maanaam liggéeykat santé yi par exemple ak collectivités loo xam ne ci part d'augmentation waroon nañ am amuñu ko mais je pense que bu ba pare daal di fay nañu bor yi léegi balaa ngeen laaj lu bees dañuy toog ba nga xam ne xel li koom gi yokk na nañ ko liggéey loolu nit mën na ko dégg mais yow bor bi fayuloo ko te yaa ngi fay yeneen bor li ci des nag mooy comme que ci santé la ñu liggéey ak action sociale gis nañu CPRS yi maanaam kuréel yi nga xam ni fa la ñu way laago yi ak ñu néew doole ak yu mel noonu fa la war a toppatoo mais amul benn réalisation CPRS bu ñu wax benn amul benn bu bees buñ ci wax nañ koy tabax hôpitaux yi nee nañ dañuy tabax fukki hôpitaux yu niveau trois ak benn bu niveau quatre mais niveau quatre dafa amul sax moom fa mais ñun foog nañ ni bu question xëy rek wax fukk wala dañuy recruter juróom-benn junni infirmier d'état wala sage-femme déedéet dañu nii nit ñi bu ñu yokk ci la besoin santé yi di gën a yokku besoin santé yi nag mooy tax ñu ne fu am par exemple juróomi junni nit war nañ fu am poste de santé fu am fukki junni nit war nañ am centre hôpital loolu moo war a tax ñu xam ñaata hôpital la ñu war a mën a tabax ak ñaar centre ñaar centre de santé ak yu mel noonu mais du ay chiffres loolu nag moo war a tax aussi ñu xam yan nit ñoo fa war a mën a liggéey maanaam lim nu mu war a toll surtout que fu mu nekk nii lim yeneen liggéeykat yu nekk ci jafe-jafe maanaam lim bi nu mu war toll surtout que fu mu nekk nii lim bi dafa cëkk ba buñ nee six mille presque déficit bi ëpp na loolu Mballo yeneen liggéeykat yu nekk ci jafe-jafe mooy waa groupe E-Media Invest ñoom juróomi weer a ngi nii amuñu seen salaire syndicaliste yi nekk ci kër googu nag jàpp ne ab violation seeni droit la ba tax na ñoo ngi sàkku ci direction générale ba mu gaaw régler situation ba bu ko deful altine bii di ñëw dañuy dem ci euh, banque seen loxo maanaam grève wax ci wàllum koom ak Woodside Energy Group bi nga xamee ne fësal na résultat yi nga xamee ne def na ko ci euh, ñetti weer yi euh, muy fësal nag ab yokku yokkute ndax euh, manque nañ ci toolu Sangomar di toolu pétrole lu toll ci euh, juróom fukk ak ñetti million ci barilu pétrole muy yokkute boo xam ne téeméer boo jël ñaar fukk ak benn moom lañ ci nemmeeku Amadou Sabar Ba. croissance bi ñu nemmeeku la ko gën a jëmmal mooy projet Sangomar bi fii ci Sénégal def ay jéego yu am solo ci secteur gaz naturel ak lii di ammoniac bu ñu sukkandikoo ci biir les communiqué projet Sangomar bi def nañ ci liggéey yu mucc ayib ci juillet 2024 bi loolee tax na rek gis ne ne ci trimestre bi yokku na bu baax a baax ba tax na lii di volume d'affaires bi toll na ci ñetti milliards ci xaalisu dollar waaye boobile croissance tax nañu samp ay laaj jëmale ko ci stratégie yi ñu teg mu soxal njëg yi ak tamit séddale bi ci marché énergétique ci àdduna bi yëpp nga xam ne ne dafa bëri lu mu yëngu Woodside investir na ñaari milliards ak lu teg ci xaalisu dollar ci benn projet ammoniac fële ca Texas ci États-Unis ñu bëgg cee def production carbone nga xam ne ne dinañ ko door ci atum 2026 loolee nag maanaam Wood ak Woodside bu Louisiane di la tax rek ñu gën a xam ak ràññee entreprise bi ci bile secteur. amadu Sabar Ba dem ca commune bu Thiès Est foofee ay yoon yu bari eh, ñoo nekk ci eh, yàqute bu doy waar ba tax na maire ba di maître Ousmane Diagne ak askan wa di sàkku ci kilifa yi ñu gaaw wàllu leen ci yoon yooyee ngir ñu mën koo defar eh, bu ko defee. dem bi ak dikk bi gën a jàppandi foofee ca commune bu Thiès Est Cheikh Anta Diop. ci biir Thiès ba ni ngay jëlee route nationale bi romb r daanaka tali du benn tali bu ci baax. tali yëpp yàqu di njàmbat fii ci diwaanu Thiès Est rawatina seen maire di maître Ousmane Diagne. dañu gis ci semaine yi weer yi sax laay wax. Thiès waa yëpp dañoo bokk di jàmbat. nekk melokaanu tali yi à Thiès. mu nekk loo xam ne ñun du ñu nekkee maire aussi du ñu daw suñu responsabilité dañuy bokk ak ñoom di ko jàmbat. Thiès waa yi wax nañ dëgg tali yi ni mu mel à Thiès. kenn mënu ko nangu Thiès mooy la deuxième ville du Sénégal. kuy nekk biir Thiès dont la route nationale numéro une bi traversé champ de course nga xam ni avant autoroute à péage bi am ku daan dem Touba fa ngay jaar mais la fay yàqu boo demee buntu kër ancien directeur général chemin de fer Mbaye Diouf am kamb bu mag a fa nekk soo rombee Seras kamb bu mag a mag nga romb tali silman bi route de bi kenn mënu fa jaar avenue Ablaye Yakhine euh, buntu hôpital régional fii ñu taxaw avenue Aïna Fall gën a ko gisal seen bopp oto yi maître Ousmane Ndiaye mi nga xamante ne moom mooy maire Thiès Est moom mii mi ngi joxoñ baaraam tuuma service yi état yi nga xamante ne ñu ngi fii ci diwaanu Thiès te ñu jagleen leen lépp lu jëm ci wàllu tali République le premier ministre le gouverneur de région le préfet le sous-préfet pour ñu ñaax les services yi nga xamante ni ñoom ñoo yor mbir moomu muy Ageroute surtout muy Fera muy Promoville ñu def taxaw ci tali Thiès yi parce que tali Thiès yi nii ñu mel nii jékkul jaaduwul pour la deuxième ville du Sénégal mhm. ñun nag dañuy taxaw ci wetu population yi koy kaas ñu wax ni population yi wax nañ dëgg ci cees ndaw ñi ñoo ràngaayu jóg ci quartier yu bëri di sakkat tali yi maire Thiès Est nag ndaw ñi am nañu dëgg lu ñuy wax conscience citoyenne te kenn waru leen jiitu ci defar seen ab dëkk RFM Thiès Cheikh Anta Diop Union européenne di wéy di jàppale euh, nguuru Sénégal euh, jukki nañ lu toll ci fanweeri million ci euh, kopparu euro ngir jàppale ko nguuru Sénégal ñu xeex li nga xam ne mooy mbëkk mi di immigration irrégulière ñaar fukki million ak juróom ba tey ci xaalisu euro ngir développer li nga xam ne mooy industrie pharmaceutique waaye tamit ngir nettoyer B2A ñu teewlu Jutta Urpilainen moo teewaloon euh, ki nga xam mooy Union européenne nji micro Yacine Gueye. And I can announce uh, that uh, gouvernement sénégalais bile Union européenne dana joxe benn montant bu tollu ci. 30 million d'euros yoo xamante ni bii la ko tax a mooy xeex immigration clandestine waaye itam sauver ay vies sénégalaises. fonds yi lee li ko tax a nag mooy renforcer capacité maanaam mën-mënu autorité yi ci taxaw bu baax migrants yi nga xam ne dañoo nekk en danger waaye itam xeex li lee di trafic de migrants dolli ci di sensibiliser ñi nga xamante ni ñoo bëgg jëm ci immigration clandestine ci danger yi nga xam ne loolee am na ko suñu message nag bi gën a fort mooy bëggatuñoo gis benn yoona tragédie yooyu noonu ci biir géej gi ci investissement public privé bu toll ci ñaar téeméeri millions d'euros union européenne ak dëkk yi ci bokk danañu ànd ak réewum Sénégal ngir yokk production jëm ci secteur pharmaceutique ci sama visite bile laa xamle ni dinañ joxe ndimbal lu toll ci ñaar fukk ak juróomi million d'euros yoo xamante ni bi la ko tax a jóg mooy yokk mën-mën ak xarañteef fa jëmale ci domaine bile ndimbal lile dafay ñëw fekk si ndimbal li nga xamante ni bii moom lañu jëmale woon ci usine de fabrication bile di Madiba yeneen investissement yi Union européenne li mu ca jublu mooy améliorer mobilité urbaine ci biir Dakar. ñu tekkiwaat tamit kàddu yi jeexal pàcc bu njëkk xibaaru guddi gi ci rajo Futur Média ci ak wergu yaram campagne sensibilisation xeex cancer du sein di cancer wen ci biir octobre rose bi bilan bi nga xamee ne kon LISCA. Euh, moo ngi ko ci def bokk na ci li nga xam ne mun nañ ko cee jàpp mooy juróom-ñaari yi soxna yoo xam ne jot nañ leen a consulter ci cancer du sein ak cancer butitu njurukaay ci euh, sept mille yooyee juróomi téeméer ñoom jot nañ détecté ci ñoom kon cancer bi ba liska jot leen a orienté euh, ci fi nga xamee ne mun lañ leen faa fàcc ñu teewlu Oumar Diop mooy chargé de communication bu Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer ak Nafissatou Sila donc nga xam ne moom mooy communication wu LISCA euh, di wax ni ñu ngi toll ci diggu weer bi ci campagne octobre rose bi euh, ci diggu weer bi nag li nga xam ne gisagum nañ ko ci ay consultation maanaam jigéen li nga xam ne seetaloon nañ leen seen ween ñu ngi tollu ci juróomi junni ak juróom-benn téeméer ak euh, fukk ak juróom-ñett ci nga xam ne seetal nañ leen buntu buntu ci njurukaay ñu ngi toll ci junni. ak ñeent téeméer ak fanweer ak ñett ci euh, loolu nga xam ne moom lañ gis nag ci weenu jigéen ñi am na ci toll ci juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne gis nañ ci ay sikk-sikk ci ween yi ñooñu jox leen leen ay bon de mammographie pour ñu dem defi euh, seen rajo ween boobu ngir ñu mën a xam euh, loolu ñu gis ci ween bi lan la ak euh, bu fekkee dafa laaj ay euh, yeneen jéego yu ñu war a tegaan ñu teg ko pour mën leen a jàppale ci seen ci seen faj ci ñi nga xam ne tamit gis nañ leen pour cancer buntu buntu ci mbirukaay am nañ ci téeméer ak fanweer ak ñeent yoo xam ne gis nañ ay sikk sikk ci buntu bu ci njurukaay bi yi nga xam ne nag ay dañu nekk ay euh, doomu jàngoro bi nga xam ne defagul euh, cancer amagul ci benn soupçon maanaam yi nga xam ne ay virus la wala cellule précancéreuse ñooñu defal nañ leen traitement bi sur place yooyu bu ci yàlla àndee mën nañoo dellu ci seen njaboot te ëllëg cancer boobu du leen dal waaye am na ci ay cas xam ne tamit gis nañ ni nécessité na Euh, dindi ci loolu nga xam ne moom lañ gis ci buntu buntu ci jurakaay bi bu ko ci laboratoire bi ñu seetal ñu ko ba xam lan la. ak football ligue sénégalaise de football professionnel. ñuy tàmbale atum ren wàllum pay view waaye boo ci noppee tamit di nga wax wàllum làmb. te daañu ci ñëw ñu tàmbale ko kon ci wàllum football ak pay-per-view bi nga daal di wax euh, ni ki tey ligue de foot professionnel ak club yi dañoo amoon ak ndaje bokk na ci ci ponk yi ñu gën a waxtaanee moo di kon monétisation bi nga xam ne moom moo di euh, jongante yi en direct léegi nag ku bëgg seetaan match yi daanaka huit cent francs kon moom ngay daal di génne ngir euh, fay ci pay-per-view ngir mën a seetaan match yi en direct ci boobu ndaje sax ki nga xamante ne ni moom moo di kon euh, Pape Sidi Lo di euh, chargé des affaires juridiques moom jot na ci indi ay leeral ci waxtaanam ak Moustapha Fall dajale nañ fi club yi ak euh, waa presse bi pour waxtaan ak ñoom ci ñetti mbir mbir bu njëkk bi mooy li nga xam ne ko bëgg jaay mooy euh, match yi nga xam ne ceetaan gi nga xam ne mën mënul ñëw ci fi ñu koy defee ñu toog seen kër ñu jaay leen ko euh, ñu wax tamit ci mbirum règlement maanaam kayit yi nga xam ne moo ñu lëkkale te loolu ci lépp ci loolu ñun ñi ci la ñu war a tënku ñu waxtaan tamit ci mbirum jongante yi kañ lay tàmbali ak kañ lay jeex ci mbirum jaay gi ñuy jaay jongante yi ci ñi nga xam ne du ñu ñëw ci stade yi war toog seen kër seetaan biñ ko xalaatee dajaloon nañ ba banqaasu ligue professionnelle yëpp nangu nangul ñu ko ñu war ko wéyal bi wéyal gi amee tam projet bi teg nañ ko ñi ci war a waxtaan euh, te nga xam ne Algaf Diagne ak euh, président Walidane ak euh, Abdoulaye Guèye stade de Mbour ñoo leen jiite doxal ci li liñ ci war a doxal ba ñu xam fa lañ jëm mu ñu war a yegg ci mbirum tànneef bi war a tànn ñi nga xam ne ñooy doxal li nga xam ne xalaat nañ ko bi ñu ko tijjee juróom-ñetti kuréel ne ñoom bëgg nañ ko doxal ñeent ñi dëkk ci réew mi ñeent ñi dëkk mbitim réew waaye comme ñun mbitim réew tànn waa réew mi moo ñu gënal ñu jiital mbirum réew mi entreprise yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi fii te ñoo ñoo ko nar a doxal niñ ko nar a doxalee ñan lañ ciy àndal buñ koy doxal ñun nan lañ koy saytoo ak nan lañ koy wóorale loolu yëpp dinañ ko tënk ci li tudd benn charte média charte média bu fii ak fan di ngeen ci jot charte boobu bu ngeen ko saytoo di ngeen xam lépp li nga xam ne moo tënk projet bi ñu nekkoon muy projet monétisation mooy maanaam jaay suñuy suñuy match euh, buñ ko jaayee nag ba am liñ ciy am as tuut comme projet bi li ko tax a jóg mooy club yi gis ci seen bopp mu jox leen tuuti koom dinañ ko jël séddoo ko ñi koy doxal kuréel yi nga xam ne ñoo koy doxal te ñu tànnoon leen ak club yi nga xam ne ñoom ñoo football professionnel bi ñoom ñoo koy séddoo ku nekk la ca war a am nga am ko ci comme ça mu yokk say koom la doon sooxe ci club yi as muy problème koppar yi loolu sax dina xaw moom moo di kon Ibrahima Faye moom bu Buzz Pro ñoom ñi xam ni ñoo gagné marché diffusion wu jongante yi jot na dellu si ci nan ak nan wala ak euh, naka la ñu mën a jëndee yooyu jongante ci pay-per-view ñu ko. donc le match sera vendu à lu ñu mën a wax rek moo di léegi kon match yi huit cent francs lay jar defe naa ni sax moo gën a moins cher entrée stade huit cent lay jar waaye fii au niveau local te ku ci nekk mën nga jaar ci par exemple Orange Money wala Wave te fii ci kanam kenn xamul mun nañ ci dugal yeneen yu ci mel ni kàppe ci niveau international bi wala fépp rek foo mën a nekk ak lépp lu mën a jëm ci visa mastercard American Express ndax képp ku mën a nekk France États-Unis wala sax Côte d'Ivoire mën na fay par Orange Money wala par Wave te kooki 800 francs itam lay fay waaye lu jëm ci visa mastercard American Express comme dafa am ay frais yoo xam ni moom mooy xaw a gën a kawe li ñu décidé ci waxtaan ak ligue bi rawatina ci expérience bi ñu am moo di ñoo ñooñu seen njëg 3 euros 99 moom lay daal di jar maanaam 2600 ci suñu koppar. de faire les paiements à gannaaw loolu yi RFM daal dinay intéressé wu sax ci euh, li nga xam ne moom moo di amateurs yi lan lañ ci xalaat bu fekkee ni ñenn ñi nag jàpp nañ ne lu baax la ñuy jàpp ni euh, dafa daal di teel ñeneen ñi dañu daal di gëm ni lii mënoon naa ñàkk ñu bàyyi football bi ni mu mel ñu ànd ceeg Aba Aba Bayo. ay 800 francs fay nii du solution quoi. c'est une mauvaise décision. de la part de la ligue. c'est pas le moment vraiment. léegi nag képp ku bëgg a seetaan jongante ci wàllu championnat local Ligue ak Ligue 2 foog mu déplacé wu wala mu jënd via pay-per-view tarif yi leer na mu ngi toll ci téeméer ak juróom fukk ngir benn jongante ñu fekk ko ci grand place bi mu toog Cheikh Sow nekk ku bëgg football di wax gis-gisam ci initiative bi nga xam ne Ligue Pro bi jël na ko te mu soxal pay-per-view non ñun yeggaguñu stade boobu nga xam ne chaîne privée yi ñoom ñooy moom football bi parce que équipe bi bu ñu amul quote-part mais duñu dem mais suñu football local bi bu fekkee ni dañ ko bëgg a interdire ñu koy télévisé euh, chaîne YouTube yi di ko jël ko c'est une catastrophe pour notre football local. bu ñu sukkandikoo ci Bouna Timéda pay-per-view bi nekk na lu baax waaye dafa jàpp ne ligue bi dafa teel a jël bi la dogal. lu baax la mais est-ce que c'est le moment parce boo xoolee suñu football dafa néew doole suñu championnat en fait gars duñ ko suivre lu bëri bon loolu boo ko defee waaw peut-être que championnat bi dafa franc franc après da ngay kaas fii jënd naa affaire yi ñëwul ñu dem ba découragé loolu bi Ibrahima Ndiaye ñu gën ko xam ci turu Kames nekk ancien footballeur gis ne méthode bi nekkul lu gën ndax dafa jàpp ne ñi nga xam ne dañoo bëgg football rawatina ci wàllu championnat dem rek ba mbir mi dootu leen ñorati. waaw man personnellement man musuma ci d'accord mais ñi nga xam ne ñu bëgg foot nañ doon toog seen kër comme ni ñu ñu fekkee nii si grand place jàpp seen rajo ay RFM s'il s'agit ñooñu nga bëgg leen fayloo 800 francs ci selfie bi non dañuy tourner la page nekk ci leneen. seen YouTube bi moom nañ ko bàyyi rek. gars yi ko am seen connexion moom mën see jàpp. li jëm ci wàllum pay view daañu ko tàmbale niki weekend gi ñu dëgmal mu yem ak bëccëg bu njëkk ci championnat local bu saison deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq. ma nga kon lu jëm ci wàllum euh, pay per view ak li nga xamee ni kon moom moo di euh, championnat local bi nga xam ne nikki weekend gi la nara euh, tàmbali ñu daal di àddu ci leneen di làmb nga xam ne jamono ji la gën a fës li nga xam ni moom moo di président CNG te jamono ji am na ab candidat bu yees peq ni tey sax la ko daal di xamle ci buntu ministère des sport di Bekay mbay moom mi journaliste ci euh, boobile euh, discipline moom nag li muy xamle rek euh, moo di candidat la te kenn gënu ko yell ci lu ni mel ñu teewlu ko. man damaa am expérience ci làmb wax naa leen 97 ba léegi maa ngi ci làmb ji man reporté naa combat yi fii 97 tey tey jii fu làmb ji toll ci laa classe bi bu ñu koy wax c'est moi Gaston Mbengue bu ñuy wax ci Luc Nicolas c'est bu ñuy wax ci Aziz Ndiaye c'est man dama am ay argument yu valable yu war a mën tax may war yore CNG bi te bu ma ko yoree jeunesse bi dinañu kontaan te dinañ xam ni kii mën naa yor CNG bi ni Bécaye moo jël pay loolu ñëpp gis nañu et puis wax amateur yi genn wàllu ko wax mu ne la Bécaye le peuple est avec Bécaye ñun ñu ko donc Bécaye xam ne ni moo fi ne et puis kun fi falit mënoo ma fee changement dafa war a am ci lamb lamb dafa war a évoluer loolu laa ci mën a wax léegi nañu jéem a wutaat leneen defaat yeneen jéego moderniser lamb écrit yi ñu fexe ba xale bu bëriwul liggéey mu doonoon Bécaye mbay moom mi nga xam ne kon ni ki tey daal dinay euh, yëgle ni ab candidat la ci euh, siège u euh, làmb ji maanaam siège u président CNG moom sax ba mu ca noppee daanaka beneen candidat daal dinay ñëw taxaw foofu di arbitre ancien arbitre bi la bokk di Malick Ngom waaye nag moom kii di Balla Gaye 2 daal dinay yëkkati kàddu ne moom ñoom mbëri moom la ñuy daal di soutenir ngir mu doon li nga xam ni moom moo di président CNG yi lay kàddu la daal di yëkkati moom Malick Ngom xam nañu ko bu baax a baax te euh, nit la koo xam ne ni ku am valeur am générosité te ñun ñëpp mbër yi xam nañ ko kon daa ñu ko jéem gunge ci lu ni mel benn mu nekk président CNG ñaar mu amal ca liggéey bu mucc ayib Mouhamed Sow. moom Birame dangeen ko cee génne. ah pour le moment de wax ñu waxi Birame ndax boobu.